Fatou Blondin Ndiaye euh, Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. maa ngi lay fay di la sant bu baax di nuyu seen auditeurs yi. Mhm, nga bokk ci plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg tey ji euh, mu am coow li fi nekk gannaaw nag ay professeur euh, ku ci mel ni professeur El Hadj Niang ak ki nga xam ne tamit docteur la bu suma ay spécialiste yi nga xam ne jot nañoo àddu ci gestion Covid bi ñu am ay révélation yi nga xam ne jot nañ koo def muy aveniruk scandale tey jii nan ngeen ko apprécier. waaw di la di wax di la di remercier encore ci invitation bi. Mhm. di wax ne que euh, vraiment Sénégal dafa doy waar. ndax mbirum njuuj njaaj surtout ci administration yàgg nañ di ko gis yàgg nañ di ko xool di ko naxarlu. Mhm. te dara du dikk benn solution benn benn sanction du yegg si. Mhm. muy lu doon lu doy waar. wante bu ñu yegsee ba tey jii mbas mi yegsi ci suñu kaw mhm. mag ñi di dee xale yi di dee mhm. hôpitaux yi sonn ñi ñu war a faj sax di ci dee mais naka ngay mën nangu ba léegi administration bi di njuuj njaaj di sàcc ndax ñi gëm nañ yàlla fañ <laughs> na ñuy jug ci yi façon doxalinu dëkk daqal ko parce que yu bëree baree baree bëri mais du du du lu bees Sénégal parce que boo déggee professeur ñaam bi nekk euh, service de radiologie mm-hmm. nee na moom bu dul docteur yi ak ñi nga xam ne vraiment faculté de médecine la ñu peut-être sage-femme yooyu mm-hmm. ñi bari ñuñ fa jël kenn xamul ban diplôme ak fan lañu ñu xam ne loolu doy na waar mbas mi fu mu yegg si nii dafay wane rek lépp lépp jàngoro bu nekk ci naka lañuy toppatoo suñu wérgu yaram ci biir Sénégal ci nit ñi ci hôpitaux yeeg dispensaires yi. Mhm. ak ci lépp ak ci matériel bi nañu koy jënde loolu moo ñu yegg si ba nga xam ne tey yi bu ñu toogee ba ñëwoon mbas ma ba muy door. Mhm. ñun ñoo doon ñaareel ci àddina wërngal këpp xamu mhm. fu ñu ko jëlee wante ba léegi rek ñu koy rafetlu. ah ay étude la woon de étude la woon. ay étude la woon man jaaxal na ma làmb gu jeexagul kenn di yëkkati naan gañe naa. Ah, parce que tey jàpp ne dañoo teel a bàkku. dañoo teel a bàkku parce que ah. wax dëkk yàlla ba ñuy wax naan ñoom gañe nañu. yeneen dëkk ñu ngi woon ci deuxième vague boobu ñun yegseguñ ci deuxième vague hmm. ba tey ji ñuy wax leneen. kon boog teel a bàkku amoon na ci wante ba léegi rek. Mhm. ñu ne def lu rafet moo taxoon xëy na ñuy wax loolu. wante tey ci tey ji ñu taxaw nii. Mhm. boo doolee Afrique sow jant yëpp boole ko. nga xam ne ñun vingt millions d'habitants rek lañ. Mhm. li dee ci sénégalais presque mën mën nañ ko méngaleeg Nigéria bi am presque deux cent millions d'habitants. xam nga ne loolu ñu war a taxawaat wax parce que bu fekkee ne ndam am na nga jël ko bu lajja amee yaa ko wala. Mm. bu ndam amee yaa ko moom wante bu lajja amee tamit yaa ko moom. yaa ko na taxawaat nag xool lu tax lu ñu indi ci lii ñu nekk nii ñun ñëpp nga xam ne naqar bi ñun ñëpp ko bokk. ba ñu mën ko xeex nañ ko war a xeex. d'accord kon yéen daal bilan ngeen di laaj ministère de la santé. bilan lañ koy laaj ca xaalis ba ñu indi woon ñu ne mille milliards la ñu ne woon indil leen ñu comité de pilotage boo xam ne ca ndoortal ba ba jeexaleen ba lépp dañ koy xam bokk ci mhm. ndax ñu mën ñu wax lan xew ñu indil ñu benn comité de suivi boo xam ne la muy liggéey dina fekk bay woy na mbuus ba pare jébbal ko ay autorité ñoom ñu taamu ca lan lan lañ cay wax ak lan lañ ca dul wax kon yéen comité bi daal doyu leen kon yéen comité de suivi bi doyu leen parce que dafay wone ne que mhm. mbir mbir mi du mbirum saay-saay ak mbirum njuuj njaaj mënu ko régler parce que bu fekkee na ñoom nanguwuñu gis njëlbeen ba ba ca jeexantal ba lan moo ci nekk mhm. mais naka la def ba am euh, solution ak li ci war ak saafara bi war ci ci jàngoro ji kooku jaxal na nit ñi luñ ci nëbb parce que loo xam ne wax dëgg yàlla àddina bi yëpp ko bokk. Mhm. képp ku ci am xalaat te di sénégalais doo ci def dara lu rafet lu ko andi ci sa xalaat. Mhm. lu tax ñu ñu koy nëbb loolu nag moo ñu dab tey jii ba fu mu nekk nii ñi waa kër docteur yi ñu ngi ciy ñàkk seen bakkan ak ñi ci ñi ci ñàkkul seen bakkan ña nga sonn. Mhm. ñeneen ñi ngi hospitalisé mais loolu yëpp. mais am na lu luñ ci mënoon wàññi. tey ngeen ciy laaj enquête yéen yéen waa avenir euh, ah, Sénégal ah non non non dañ ciy exiger enquête. affaire bi du dem ay porter plainte ku wax ñu porter la plainte. kon daal gisew leen plainte gi ñu porter. Ah, docteur Niang daf ñuy jaaxal sax parce que mënuñu am presque deux mille morts kii nekk chef des urgences juk wax. Mhm. firndeeluñu deux mille morts yi ñu laan dem dañuy porter plainte kii wax. mais nit ñi gis nañ dee mais cimetière yi wax nañ ko kon plainte ba lañ fay wax ak ban perte temps la ñuy am foofu. kon yéen seen taxawaay jàpp nga ne doon waruloon doon plainte mais. ñoom ñu andi ay preuve parce que boobu ba léegi sénégalais yi ñu ngi bëgg ay wax yu wóor yu leer bu méttee ñu xam ne métti na wante ay wax yu wóor yu leer yoo xam ne autorité ya ko war a wax ñu wóolu leen ñoo koy wax. mais tey ji loo gisee comme tey moom mi docteur Nia plainte dal na ci euh, ndoddam keneen boo mayul bu génnee wax yeneen ak yeneen euh, li ni mel nan ngeen koy jàngate mais dama lay fàttali ne Guy Marius ba mu jógee ne suñu mutuwaay yi jumtuwaay yi nekk ci hôpital mm-hmm. néew na néew boo xam ne suñu kilifa yi bu ñu feebaree dañuy jël avion dem faji ji feneen ba yàlla def seen bakkan di farot. ba mu koy wax ndeysaan benn kilifa gu mag mu fi génnoon àdduna. ñu koy ñu koy vraiment mu nekkoon suñu suma sama xarit man. Mm-hmm. mais ba mu koy wax wax ko woon pour pour ñaawal waxu ko woon pour leneen mais dañ ko ne jël ràpp tëj ci kaso bi ñett ñetti weer ndax lool rek de ndax lool rek te boobu kenn waxul Covid. te la mu ci jublu woon mooy wut leen ay jumtuwaay yu mat pour que sénégalais yi bu ñu fajoo ñu mën a toog ci dëkk bi faju mhm. loolu rek la ko ci taxoon a jóg te jii tamit bu docteur taxawaatee docteur Soumané ah seen centre yi de jël nañu matériel ba jaay ko seeni oxygène niñ ci biir kër yi mhm. ñun buñ ko soxlaa ñoo amuñu ay te du moom rek ko wax ay docteurs yu bari wax nañ ko mhm. ak leneen ak leneen mu doon yu garaaw fekk ministre bi taxawoon na ne man de am naa oxygène yu mat sëkk biir Sénégal amuñu benn problème. léegi yéen tey ngeen di laaj ministère euh, de la santé euh, enquête ngir mu jox leen rapport def ay bilan ndax bu leen joxee bilan yooyu dina leen doy ndax euh, teewul. ci discours am ñoo ngi dégg man doy. Ah. parce que ki ki ñu teg ci ministère de la santé. Hmm. doyuñu. politique rek suba ba ngoon moom lay liggéey. d'accord suba ba ngoon politique rek lay liggéey. dem na fi sax bay féewaloo lébu yi taxawloo di leen wax leen fii ngeen bokk wala fee ngeen bokk politique rek moo mooy liggéeyam am na sax ay conseillers de la santé yoo xam ne defuñu benn jour médecine marché ministère de la santé ku ne jooy na ko fi ñu enrichir fi ay nit ay société ñu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw ba jaaxal ñëpp hmm. mais naxe naxe bi Sénégal ak ak layam bi ak wax ju rafet ji suñ ko continuer mais fuñ jëm d'accord bu fekkee ne ñiy wax dañ leen di jàpp di porter plainte di leen tëj te buñ leen tëjee kenn du jóg kenn wax mooy ñëpp fen rek lañ bëgg Ah, kon sénégalais yi daal ñoom. Euh, kon sénégalais yi ñoo ñoo ñoo ñooy. xaar ñoo luñ leen teg. Euh, ah mais man man bu fekkee ne docteur bi am na kii am na lu ko fi teg. parce que man man ci sama wàllu bopp rek. Mhm. sama wàllu bopp rek. man gis naa ñu dee ndax oxygène. gis naa xam gis naa ku dee koo xam ne dafa tane. ñu débranché ko jox keneen parce que matul woon. le temps que muy désaturé moom mu dem. am naa sama xarit boo xam ne yaayam dañoo wër Dakar yëpp fa mu mujjee am fekk na yaayam mujj na yàlla mujj na ko nangu dañ ko ne boo amul un million doo leen dugg fii mais kon boog bu docteur yi taxawee di wax li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu jug def enquête jug régler secteur bi parce que wax ji kenn du ko politiquer. kon yow jàpp nga ne wax ji doyul communication bi doyul. Ah, sensibilisation bi doyul. tant ñi ngi dem boo demee sa PCR def fa quatre heures cinq heures de temps. Hmm. mais mais soxna si dem naa benn clinique euh, euh, privée. Hmm. test rapide ñu koy fayeeku test PCR vingt cinq mille mu nekk fii Dakar Plateau à deux pas du palais présidentiel kenn nettaliwuma ko fekk na ma dugg benn structure boo xam ne def fa yegg si fa le premier jour à cinq à à sept heures. yëkkaat fa sept ñu dema liste bi jeex na duñ jël kenn loolu moo xew Sénégal kon boog xoqatal bi ak ñàngal bi ak naxe bi fajul dara ñu tege ko nee daal ñu tege ko nele te sérieux il faut qu'on soit sérieux dans ce pays euh, ci ay simili ñu bëggoon a am sa xalaat tey jii ci révision list électorale yi nga xam ne door nañ ko euh, samedi euh, gi ñu wees euh, ci même réew ndaw yi ku wax avenir Sénégal gi ñu bëgg ñoom lañ njëkk a xalaat ndaw yooyu lee buñ ci boole primo votant yi nga xam ne suñoo voté tey boo moyul duñu bokk ci list électorale yi ndax ku ci yorul carte d'identité diir biñ la jox ndax di nga ci mën a am carte d'identité bay ñëw inscrire lu lu war a lu ñu war a seetaat la tey jii ban jàngat nga ciy def gis nga soxna si lii mooy won dëgg dëgg dëgg dëgg li tax dëkk bi tardé. mooy. dëkk boo xam ne sa xaalis matul ndax boo ko amoon xëy na di ko dugal ci sante mm-hmm. dëkk boo xam ne ndaw yi jaaxle nañu bay dee pour jóge dëkk bi kon boog ndaw yi foofu lu jar a bàyyi xel la. Mm-hmm. ñu toog tey jii ne bu ñuy dem voté ne seen récépissé mhm. doyul pour voter ñuy fàttali que ne que deux mille dix sept waxuma la ndaw yi kese de mhm. waxuma la à six mois des élections mhm. mais à trois à trois quatre jours des élections jël nañ fi ndogal ne ñëpp mën nañ voter ak ak ak ak ak morceau kayit googu ak sa carte bu njëkk ba boo ko toogee tey def ko loolu mooy xale yi dañuy jéem a am carte bu fekkee ne nangu nañ leen jox carte. Mhm. ñu dellu si waat inscrire ñu defaraat encore carte mais ñun mais ñun xanaa dañoo dof wala lu ñu dal. ndax. ah dama xam ne ku sa motuwaay doyul ku am wér gu yaram boo xam ne mi ngi tiim sa mi ngi tiim sa kanam ak koom bi bi ci nar a bi bi ci nar a yàqu ndax ndax loolu. Mhm. ndax di nga jël sa xaalis di doxalee noonu. ku bëgg sa jeunesse ne ko bàyyil violence ne ko gëmal sa dëkk ne ko yow yaay yow yaay sama priorité ci dëkk bi. Mhm. yow yaay sama programme maa ngi génne ay milliards pour toppatoo la ndax di nga doxalee noonu muy wone tamit leneen. lan. li jéeg li nekk ci seen bopp yëpp yëpp yëpp mooy élection locale donte ñu ci biir mbas bi. donte nit ñaa ngi dee. kon jàpp nga ni waajalu élection yi. Euh, loolu. Mhm. loolu rek a nekk ci seen bopp ba fi ñuy toll nii fi ñu toll nii loolu rek a nekk ci seen bopp deewuñ askan beeg nasaxaayu askan bi ay communication kese la la ñuy def seen doole la ñuy def seen xaalis lañuy def seen xalaat boobu ba verrouillé ko. Mhm. mooy ay la ñu def ca conseil constitutionnel rek la ñuy def assemblée rek la ñuy def jeunesse. kooku moom dañ koy def ba mu wër naññ mbéngu ci nit ñi d'accord <laughs> wante wér gu yaramu nit ñi ak yu demee noonu. Mhm. defe naa ne bu ci partenaires yi taxawul ne la benn sénégalais dootul dootul dugg sama dëkk bu lii dakkul nii lañ bàyyi ñu de ñoom de mën nañ ci dara. <laughs> wante kenn faalewul. d'accord euh, soxna si Fatou euh, Blondin Ndiaye Diop ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay dellu di remercier di sama xol dafa jug ci li xew daal. <laughs> comprendre nañ ko donc on mérite mieux que ça on mérite mieux jërëjëf.